bii di woote nga xamante ni ñu ngi koy wootee daanaka démb presque deux heures du matin jot na li ko bëbat nag mooy dañu dellu si rek rappelé ni ay fan ci ginnaaw mouvement Frapp France de ak mouvement Y'en a marre jël nañu initiative tey jii nii ajjuma ji le 10 décembre 2021 ci Dakar fépp ci Sénégal ak ci diaspora bi que ñu amal ay marche pacifique pour l'indépendance de notre justice bi ñu ko lancé ñu jàpp ni thématique bi solo bi mu am mbirum justice su Sénégal solo bi mu am bu ñu ko yemalee ci suñuy mouvement rek du ñu ci am lu ñu bëgg ndax lu am solo la pour Sénégalais fallait que ñu associer Sénégalais yëpp à travers différentes organisations ay kuréel yi nga xamante ni dañuy yëngu mu doon seen i préoccupation boole ci ànd ak ñoom ñëpp pour que ñu dox mbir moom ci la ñu tàkk suñuy dàll dajeeg ay coalition politique comme Yewwi Askan Wi comme wàllu daje aussi ak plateforme euh, jàmmi réew mi bi nga xamante ni moo ëmb euh, une bonne partie l'essentiel ku solo ci société civile sénégalaise ñoom ñëpp ñu marqué seen adhésion euh, jàmmi réew mi toog fii ñu marqué seen adhésion lancé sax ay appel pour que marche pacifique yooyu mu mën a am mais que au-delà des marches pacifiques sax que ñu mën a waxtaan en profondeur xool yan proposition la ñuy defal nguur gi pour que mu ay am ay coppite yu am solo ci suñu euh, justice ni muy doxee euh, union des magistrats du Sénégal sax kuréel bi ëmb magistrats yi mbëbatoon nañu dajeek ñoom waaye xat-xat yi tax na dajewu dajewuñook ñoom ba tey jii nii waaye jàpp nañ ni dinañ dajeek ñoom ci fan yi di ñëw donc ñu wéy ci loolu rencontrer mouvement citoyen yi rencontrer euh, activistes yi euh, pour jëm ci manifestation wu tey ba démb déjà li may signale mooy de delà de Dakar am na quatorze autres localités fukk ak ñeenti ñeent bërëb ci biir Sénégal yi nga xamante ni aussi ay citoyens mobilisé wu nañ fa euh, déposé nañu ay lettres d'information ci seeni préfet pour amal manifestation wu tey yi démb ci ngoon la ñu préfet bind bataaxal na arrêté comme d'habitude comme très souvent d'ailleurs ni muy xewee Sénégal ay citoyens yu jóg pour exprimer droit constitutionnel bi nga xamante ni mooy droit de marche autorité bi tere ko te du ko teg ci lenn li nga xamante ni mun nañ ko nangu donc ci loolu la ñu nag frappe ñu amal ci lu mu gën a gaaw benn live bi ñu diffusé sur Facebook pour joxe suñu position ne ni loolu nanguwuñ ko ndax marche pacifique droit la bi nga xamante ni constitution wu Sénégal moom moo ñu ko jagleel te du ñu nangu encore une fois de plus droit boobu ñu ñu koy bañal ci guddi gi nag euh, bi ay 23 heures rek li tegu jotee ci la ñu plateforme jàmmi réew mi bi nga xamante ni comme ni ma leen ko waxee ci njëlbeen ay partie prenante lañu ci biir euh, processus citoyen bi euh, ci lañu ñu contacté ne ah ñun de dañ bëggoon dox ay tànk buggoon nañu vraiment amal ak yéen ay waxtaan mais aussi amal ak autorité bi waxtaan euh, ci mbir mi nga xamante ni am na solo suñu justice su Sénégal la euh, ñun ñëpp mu soxlaal ñu ñun ñëpp ñu am yéenewu dox ci ay mbir pour que manifestation yi ñu mën a am mais au-delà des manifestation aussi ñu amal ay waxtaan yi nga xamante ni dina mën a jur ay propositions yu am njëriñ pour suñu justice